Euh, lëkkaloo ak euh, euh, centre de transfusion sanguine pour que ñetti weer yu nekk waa port yi su ma nee waa port na képp kuy xëy di yegsi ci port bi la mën nga nekk transporteur nekk manutentionnaire wala nga nekk transitaire nekk douanier ñoom ñëpp dañ leen di def bugg defal programme boo xam ne ñoom dinañ xam ne bés sàngam war nañu mayee deret loolu dina tax centre bi du am njàqare

yoo xam ne àdduna si yëpp gis ñuy ñëw Sénégal di ci eh, inspiré wu ci ñoom liggéey bi ñu bi bu xarañ loolu il faut que sénégalais di xam nag aussi bu amé ay banqaas yu nekk ci réew mi di liggéey di def ay effort ñu leen di eh, reconnaître ñu reconnaître li ñuy def na parce que bu démé bay wax élimination waxu ñu preuve ki waxu ñu ah, di wañi taux beeg yooyu mais dañ ko wañi ba mu jéggi. D'ailleurs, ba nga savez ne léegi dañ naan mën nañ koo dindi complètement te lii qui ciy contribuer ñu leen di féliciter di leen dire wax ne ñoom pour source d'inspiration mais aussi euh, programme de euh, euh, centre national de parce que nous, chaque jour nous ngi sauver ay vies même. mais dañ koy mais tous les jours que Dieu fait nous ñi ngi contribuer sauver ay nit ci ci volonté acte de générosité bi yow ak man ak keneen ñi ngi def mais nit ñi dañ koy réeree xel que ne euh, aussi bu ñu mayee deret man dañuy fàtte que ne sauvé nañu parce que day day du acte bi du nekk acte direct duñ ko gis mais li ñuy joxe sauvé ne quelque part euh, nit boo xam ne bu ko amul woon euh, dina ñàkk dina faatu donc vraiment ñuy rafetlu jataay bi di wax ne port de Dakar la économie la mais aussi Euh, de l'écriture sociale, donc l'étude aspect social